ngeen même une minute rek. Mm-hmm. ma nuyu leen ziar leen. Mm-hmm. baalu ñëpp àq. Mm-hmm. baalu Sénégal yëpp bas baalu Sénégal ak baal Sénégal ou àq. semaine bii wala ci weekend bii. sama tur fees na lool. ci lu juróom-ñeenti tur seq. mais jàppewuma ko nattu. dama koy sante yàlla. ndax man am naa tur am tur ndey ak baay. sama doom Mamadou Moustapha Diop la tur comme ni mu tuddee Mamadou Mansour Diop. am na tur am na turu yaay. ki ma àndaloon defi njombe am na tur ndey am na turu baay. moom am na tur. ki dee ci seen loxo am na tur am na turu ndey am na turu baay ça fait neuf personnes. Mm-hmm. waaye yàlla dogal na ñépp benn tur la ñuy tudd mooy le fils de Mansour. Mwen mm. ak djapè ou mwen kon natou Dwen mwen kon djapè aksan ti yalla Poske populasyon pou Senegal Bo ame 17 milyon ou person 17 milyon Nwen djou do Ti ben ni vilaj pou touti Yalla di le dimboli Bo founye le tout de Senegal Nye pou kham la Bo pou ken defen yon bem Sakpounye identifiye Identifiye ko a ton nan Defen nani Li geyo lou yalla Ou le genwa Senegal Ou le nga lebal len li tax fu ñu la tuddee ñëpp xam la bu la yàlla defalee sutura defal la teraanga nga sos kër sos njaboot yàlla may la fukki doom ci biir doom yooyu mu la may ñëpp nekk ci sa waaw ku nekk di jàng ngay def ci moom yar bi sa baay defoon ci moom yàlla génne ci kenn ku la tër lu mat fukki at nga joytu ko képp koo am kenn kooku la tër bu defee njombeem bu fekke dellu woku ci nattu yi yalla di nattoo ab jaamam. Mm. ma xamni do julit do gor. Mm-hmm. Mm-hmm. assumé na toutes mes responsabilités que xale bi def li bon et mon fils aîné waye mom rek mo neeku ci sama doom yi may contrôler comme ni sama papa jàngale woon yar ma def ci mom yar bobu malheureusement damay nangu ne sama dom la mais ma boole ko ci natou yi nga xamni mom la ma yalla natto ba mu ñimee def man bayam lu mu ñëwut ta def. ba muy dem fo xamni rakam du fa dem. amul kenn ku fay dem sama ay doom. kon damay japp ni natou la. mu ma yàlla teg. continuer nak di demander la justice. que chacun assume ses responsabilités il a 22 ans. que justice fait son travail. mo continuer aussi di prôner toujours que faw ñu delloo ci wat Sénégal peine de mort man gënuma kenn sama doom gënul kenn bay def naka su dul té te dara du ko ci fekk. ma ngi demander justice def liggéeyam ma ngi demander ñu déllu soit peine de mort mais ma ngi demander itam ni nañu ma baal ma bal ñëpp itam bal naa ñëpp. Mm. parce que tax ma bal na ñëpp moy Mansour day day liggéeyi wacc dem kërëm tok uuf ay njabotam nek dans de très bonnes conditions. Mm. alhamdoulillah mm. santé waaye nak dom ju faqé ko ci man itam. man may bayam waaye doom joo xam ni dëkkul ak yow nekkul ak yow te def nga lépp pour moom mm-hmm. <laughs> loolu nga man mm-hmm. moom bu optee leneen nag ñu askanale la ko nangu naa mereewu ma kenn nag lu ma ci waaye tudde mereewu ma kenn mm-hmm. waaye dama ko sante yàlla ndax gënuma waa Sénégal lu tax fuñ ma tudde ñëpp xam ma liggéeyalu ma waa Sénégal liggéeyalu ma yàlla lu tax fu ma ñëpp xamee su ma amee benn doom bu mel noonu dama koy dugal ci dàmbak nattu yàlla ndax innama amwaalukum wa awlaadukum fitna man nangu ko te sant ko yalla bu baax te demander justice de liggéeyam demander itam ñu dellu ci peine de mort parce que nit di fo du fowé jamais ak bakkanu jàmbur. ngeen baal ma asalaamaaleykum je pense que jarul sax jarul sax commentaire en hein, foofu hein. parce que alaaji li mu wax tay njëkkee na ko. wax na avant fi ci tës bi. wax na ko euh, chimère. chumère loolu buñ ko mënoon am rek yàggul toog na fii moom alaaji ne jël na doomam yóbbu gendarmerie tës bi na ko wax na mhm. ko wala waxu ko boo amoon loolu rek nga may ñu ko rek ay weer ci ginnaaw la je pense yàgg na ko wax may ñu ko na ko jàmbat yàlla mi ñu tim na loolu jàmbatee na ko fu ne lii moo ci suñu commentaire nekk jàmbatee na ko fu ne waaw te loolu moom bu la ko ñëpp seedalee moom daanaka yow moom sa responsabilité dégagé nga ko. Hmm. dégagé nga ko. xale boo ko juree. ajali ko màkk sax. ngir mu baax. alaaji ajal na makk màkk 2015 doomam pour mu baax. alaaji day toog fii ne ma sa rakk ja génnee naa ko. ma ne ko lu mu def mënuma lii la def maa jël sama oto yóbbu ko gendarmerie ban ma ko kalaamee. alaaji moo njëkk nekk victime doom ji. ci mhm. leneen ak leneen ak leneen. loo xam ne mënuñu ko wax. mais man man dafa am lu. donc jarul sax ñu ci ñu ñu dama ko fekkee pour wan la na rek. moom jóoba juba jaanam wàcc na. ànd nañ fii ci otoom ñu taxaw fii di waxtaan ci bopp koñ. xajal seen kaw xajal ci bopp koñ. ma ne ko waa sa waay dama boobu mu ne ma déedéet parce que dafa am oto bu ma doon jënd pour Moustapha. laaj ma oto bi lan la. Dodge mi ngi noonu yow gis nga oto bi. fekk naa lépp. bu baax ba muy mottali waa ji xaalis bi ñun ñaar ñoo toog kenn du ko netali man maa ko. utal ko berger d'une dizaine de millions. dama ne. mais ku beug bon nak no ci dara. dama ne. nattu billaay nattu yàlla la rek 5 millions 6 millions pour jox ko nit. muy def la navette entre bir mbour ak suma nag yooyu te meunte ci wallahi pouram am ci lu mu jàpp rek mën baye yenn yi. kooku alaaji gàcce waxu ñu nak yeneen yi ñu nak yeneen yi mais gàcce ma tay yal na yalla may lu xolu muñ rek te ñepp xam nañ ne. yag nañ ko wax ci tës bi de xalé yi. wallahi ñoy natu seen waa. li nga xam da ngay def loo mun nga def rek na def. gàcce ngalaama ku la fekk fële. déglu la alaaji waxoon fan yee ci doom tout le monde koy def sa baax ko de baax na. baax jël ko yóbbu ko ñu gars yi redressé la ko moo gën koy bàyyi ci kër gi. jooyloo sa yaay rek. baax na. yàlla musal ci jooyloo suñuy ndey. dafa muy mujj. baax na. lu doon jëlee waaye lu ko desee la. donte lay. dañu bàyyi nëpp nëppal doom. baax na. bàyyi nëpp nëppal doom mooy dëgg de alaaji donc bu tooñee da nga teg ci yoon. mooy mhm. yoon de. donc du fay way juróom. Mhm. wallaahi dëgg nga wax. wallaahi dëgg nga wax laaj. dëgg la bii bii ci mujj bii bii maam bii. Mhm. sama doom yàq na oto jàmbur ba nag bëgg a daw. gaañu ci dem hôpital ànd ak ay copains ñu koy nëpp nëpp li jéem a jaay affaire affaire yu guerrier. ñu ngi koy déggee sama kër. damaa taal sama oto ñu fekk hôpital ba mu nekk. booy bëgg ko génn rawale ko mën leen aw aw leen sama kaw a noppi. taxaw fa woo ki mu yàq otoom woo gendarmerie ñu jël ko jël ko yóbbu. billahi wal azim bii avant may ñëw fii avant may ñibbi si ñëw jël ko yóbbu gendarmerie mën leen na fay ki mu yàq alalam. parce que fekkoon da ko yàq toog ñu négocier ko mais da koo yàq bëgg a daw ba noppi jëli ak gàngam. ne copains ñu koy jéem a protéger. ba ni booy booy gàngi xoolal ku ni ma peer ma toi yow dugg ci sa ba kenn ni ma peer dalaaj nga dem boole ko. bi du bouger yow taa du kilifa da ngay doon responsable. léegi anamu. mbala ba ci loxo gendarme laa ko bàyyi di su ma dawal moto moto su ma tàggoon dawal bëgg oto jàmm. bu ko ma fekk ko fa dinaa négocier mbaa ma fayal ko mais da koo teg diil ànd ak ay copain daw da koo tàgg da koo mbëkk yàq alalu daw dem non koy la yare bien chati bien lay ci lu bari ci yar da yar ay moto ci hôpital fi li ñu ni bu sadik ñu sadik far ci lenn mu